ba ay wax homosexualité jub si yow lan moo ci sa position. man la ma ca waxoon wax naa ko pare du ma ci waxaat la ma waxoon ci livre bi. Mhm. mooy livre bi nan ko liir. kuy attaqué na attaqué livre bi. Mhm. mais ñiy wax ci livre bi ndax liir nañ ko man li ma wax c'est clair góor jigéen du ma ko jàppale du ma ko fekkee fii laa toogoon ci plateau Pape Cheikh mhm. ne ku fi góor góorlu ku fi góor jigéen jigéenlu nanu jaar ak yow fan war a jaar ba nga jub ba nga jub ndax sa mbokkum jullit su nekkee ci yoonu dëng da nga koy naxanteeg moom fexe ba mu ñëwaat. nga ñaanal ko mu génn ci. mais livre Bougar Sarr dama ne ku ko liir. gis ci loo xam ne safaan la. neel pas sàngam nangam nangam ma nga ca. waaye di wax ci livre boo xam ne liiroo ko. man loolu laa ne mënuma ko nangu tey. mais mais loolu boo xoolee lu ko gën a amplifier je pense bien mooy les réseaux sociaux. parce que boo xoolee aussi à travers Facebook ou alors peut-être yeneen plateforme yi. ku ci nekk am nga maanaam cette possibilité. mais Cheikh Tidiane man man critique littéraire la. mënoo mm-hmm. am mënoo am démarche boobu. non c'est-à-dire que kon man li ma jàng lu may jariñ. effectivement man dañ ma jàngal ay technique de lecture man xam naa luy roman. xam naa luy nouvelle. xam naa luy chronique. xam naa ko xam naa bu baax lan la. médecin bi bu jàkkaarloo ku feebar mën na laa wax kii xurfaan la wala mm-hmm. soj la bu sëqatee mm-hmm. dañ ko koy bàyyee mu moom ko réseau social nag mbett la penc la ku ne lu la neex nga wax la fa nit ñi di wax ñoom la concerné mm-hmm. dama ne du ma wax da ngeen ma invité pour ñu wax ci man ak samay jaar-jaar bind naay livre nan wax ci samay livre lu tax may defal promotion yeneen livre dégg nga la question mooy que pour man suñ société bii lu nu soxla mooy ñuy waxtaanee xam-xam tey bañ a waxee fitna te day bañ a waxee xalaat xalaat ku ne am na ko mais ñi am xam-xam nañu wax ñi mën a liir nañ ko liir génneel ñu ne ñu lii ak lii moo ci ne waaye di man pour man auteur boo koy attaqué da koy attaqué par rapport ak contenu bu fekkee contenu bi nag conformul ak li nga xam ne moom la moom moo conforme ak suñuy valeur bu boobaa nag nga ñu attaqué ouvrage bi mais comme je dis rek man wax dëgg na yàlla bu ma sañoon bu ñu ma invité ci place samay promotion livre la ñu def promotion livre <laughs> ndax ñu ma bind ëpp ñu ma doon bind euh, gi mooy ñiy bind